Euh, Mouhamed Gueye. lan donc bon dañ projet la projet désensablement au niveau de Gueule Tapée Fass Colobane. bon FERA la société partenairiat feera ak euh, mairie commune Gueule Tapée Fass Colobane. bon tey sunu programme comme d'habitude euh, comme toujours dañu am ay itinéraires yoo xam ne dañ koy jël au niveau de Colobane. parce que qu'on a trois superviseurs. Donc l'autre est à face, moi je suis à Koloban. Donc chaque jour, dañuy jël un itinéraire. boo xam ne koñ boo xam ne on Donc, nous désensable pour de nous soyons koñ boobu hivernale. Donc, eau pluviale pour ko pour que dañu nekk ci période hivernal donc set wax jigéen. bi mhm. bu ngay pour mu ñi nga xam ne dañu bale ba def ko ci poubelle yi si surtout loolu loolu ñu ngi ciy ñaax suñu mbokk jigéen yu baax a baax parce que dëkk bi bu setee dañ naan jigéen ñi la c'est vrai parce que ñun ñu ngi liggéey mais dangay liggéey da ngay dem benn kër boo xamante ne boo fa liggéey buntu kër gi boo ko liggéey suba boo fa romee day mel ay jigéen nekk fa te am na ay femmes yu nekk foofu donc daal suñu mbokk jigéen yi ñi ngi leen di ñaan jigéen bu nekk nga bale sa néeg bale sa buntu kër moo ko gën ndax nit balaa mu lay fonk da fonk sa buntu kër fo baleel sa buntu kër ba mu set sa mbalit teg ko ca pollu te ko sa buntu kër oto mbalit day ñëw tous les jours day ñëw jël ko jël sa mbalit parce que yéen yéen a ñu war a jàppale sunu yaay yi sunu mag yi su sœur yi sunu sunu rakk yu jigéen ñi ngeen jàppale ñu ci baax parce que góor ñi ay jàmbaar lañ mais ñun ñoo war a gën a nekk ay jàmbaar dañu set bu ñu setee rek feebar dootul am leneen lu dul corona sax du fi am incha allah. waaw mais dafay jàppale lutte contre la pandémie parce que aussi tamit dafay provoquer ay musique ci vois que ne pandémie tamit xaw na laal paludisme tuuti donc ci vois que ne éléments yi nekk fii yëpp sunu ginnaaw ku ci nekk yaa ngi yor sa masque pour sa protéger donc loolu aussi yëpp pour di sensibiliser waal nit ñi aussi tamit ñuy bañ di sànni mouchoir yi sa sachet plastique yi yooyu noonu yëpp ñu koy déposer ci poubelle ordures yi yooyu noonu yëpp aussi tamit yemuñ ci désensable parce que dañuy communiquer ak population population bi parce que boo xoolee ñi nekk ñii ñëpp taxaw am bon y des jeunes donc loolu la ñuy dox ci loolu la ñu mairie bi contacter ak société Fera bi nga xam ne tey moom moo def partenariat ak waa ak commune Gueule Tapée Fass Colobane donc ci loolu la ñuy dox. ah pas du tout boo gisee nit ñi sax suñu accoutrement sax nga xam ni liggéey moo ñu tax a jóg donc dañu ñëw fii pour dindi suuf si suuf si lépp lu ñu romb muy suuf dañ ko war a dindi ndaxte dañu toll ci ci période boo xamante ni dafa am feebar. feebar bi am na aussi nit ñi ñu ci war a mën a jàppale jàppale suñu bopp yow ci naka di defar kër yi ba mu set parce que euh, le virus virus bi kenn xamul kan lay dal kenn xamul fu muy duggee mais mieux vaut prévenir que guérir looloo waral euh, commune Fass Colobane Gueule Tapée am partenariat avec waa euh, kii FERA am benn kii projet boo xamante ne dañ koy def pour dindi suuf si yëpp Colobane Fass ak Gueule Tapée mais temps yi ñu ngi fii fii lañ nekk moom di liggéey incha allah jeexagul parce que jeexale jeexalaguñu koñ yi bu ñu jeexalee koñ bi dañuy dem beneen niveau muy Fass ñu am ci ay jigéen ak ay góor di nekk ay jeunes nag tamit yu jàmbaar jeunes yu jàmbaar bëgg liggéey ndax tooguñu rek ñàkk njëriñ non non non dañu xam ne commune bi ay doomu commune bi lañ dañoo war a liggéeyal commune bi Ousmane Ndoye jàppale ñu ñu liggéey commune bi yëpp nga xamante ne ku Fass ak Colobane Gueule Tapée doo dootu gis suuf doo fi dégg kaa sax kii coronavirus loolu daal la ñu bëgg te coronavirus bi aussi bëgg nañ mu dem xamante ne bu dootuñu déggati benn cas ici au senegal